jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 euh, ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, ñun mbokk yi xam ngeen ne samedi bu jot ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ñu ñëw ak yéen ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu am mbégte lool ndax dañoo am benn invité boo xamante ni tey yàgg nañu sàkku si moom def ak moom émission mais tey la ko yàlla dogal muy président Mbagnick Diop Diop bu ñu waxee président Mbagnick Diop nag xel yëpp dafay dem euh, ci président du mouvement des entreprises du Sénégal waaye xel yëpp tamit dafay dem ci li nga xam ne tey moom mooy euh, corridor euh, xel yëpp dem ci forum du premier emploi xel yëpp dem tamit ci koo xamante ni tey sénégalais la bu bëgg réew mi sénégalais la boo xamante ni tey bu am personnalité la di def ay proposition ci réew mi ba pare tamit nekk référence ci ndaw ñi di inspirer sénégalais yu bare bare liggéey liggéey ci élégance et tout ça. Euh, kon am nañ mbégte bu baax a baax prési vraiment seq ak yow émission bi ñoo ngi lay nuyu. ah maa ngi lay sant euh, Abdou Khadre maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal di nuyu aussi suñu auditeurs yi ñuy déglu di la jaajëfal di commencer par féliciter la si liggéey bi ngay liggéey euh, saa yu mu lay déglu revue de presse dama naan ah. Abdou Khadre moom tey bu amee ñett revue de presse yu gën a xar si dëkk bi euh, mun ñu ko si génnee donc kooku tamit sa liggéey la ma di ko rafetlu à travers ta personne may nuyu waa rédaction bi yëpp di nuyu direction bi du nuyu sunu auditeurs yi ak surtout sa auditeurs yi kàddum réew mi merci euh, président Mbagnick Diop euh, waxtaan bi nag mbokk yi dana ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy MEDES dinañu wax tamit ci li nga xam ne moom mooy corridor bi nga xam ne MEDES daf koy organiser dan nag mu deuxième édition bi dinañu wax tamit ci leadership African Awards mu nekk loo xamante ni tey ginnaaw bi mu defee corridor fii ci Sénégal mu génn ko ci Afrique di ko amal ci àdduna bi président ba Mbagnick Diop nag euh, bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy MEDES ak corridor bi dafa am ay vraiment ay mots yu bare yoo xam ne danga koy faral di wax ma ne woon su ma amee opportunité toog ak yow dinaa la ko laaj lan moo tax nga koy faral di wax euh, da ngay faral di wax ndaw dafa war a nekk ku ambitieux comme ay ambition da ngay wax ne ndaw ñi dañu war di gën a góorgóorlu di liggéey innovation tamit da nga koy faral di wax lu bare bari action danga koy faral di wax progrès da nga koy faral di wax say terme yooyu lu waral loolu waaw kooku euh, gis naa ne kon yaa may liir bu baax di ma dégg déglu bu baax parce que dama nekk euh, nit koo xam ne dama gëm liggéey sa ku ma xam rek wala man ma di la gis ngay dox di am ay jéego yooyu def damay am cawarte encourager la soutenir ba nga xam ne ne chaque fois su may def conférence muy fii Sénégal muy France muy Amérique fu mu munti doon euh, ndaw yi loolu laa leen di wax mooy àddina liggéey rek ko yore koo gis rek am na jaar-jaar munoo toog rek fi nga toog yëpp fekk si la fa di wax toujours bu leen yàkkamti seen àddina mais di wax toujours aussi di am ambition da nga naan dara jomb lu nekk mën naa ko am lu sama morom am rek wala naa ko mën a am mais am ko si kaw ñàq ko liggéey gëm sa bopp di innover ba gisee nit ki di def lii xam nga ñu Sénégal africain loolu moom nu yàq surtout Sénégal bu kenn amee télécentre très dox ñëpp dem aussi très bu kenn amee sit internet muy dox ñëpp dem uti site bu keneen amee leneen ak leneen du ñu jéem a innover. si innovation dafa baax man damay xalaat toujours fair autrement. bu ñëpp di def nii ma dem defi ne leen su loolu yàlla nag duñ ci suturaal ñu si am ay ndam ba nga xam ne ne savoir boobu damay bëgg toujours di ko partager ak euh, les plus jeunes àddina dafa metti àddina dafa soppeeku léegi euh, peut-être ñun bu ñu gën a nekk ndaw y'a 40 ans y'a 35 ans mbokkutul ak léegi léegi àddina dafa metti loo xam ne ñu dañoo def fukk yegg si si léegi yéen di ngeen def fanweer pour yegg si donc dafa difficile donc il faut nga mën a gëm sa bopp xalaat ne man mii kat dama war a tekki xalaat ne man mii kat am naa ay waajur xalaat man mii kat am naa famille am naa ñu ma yaakaar si lépp naa ko teg si liggéey gëm sama bopp gëm ne que yàlla ñëpp la fi nekkal mais yàlla yàlla aussi comme ni ñu koy waxee bay sa tool loolu moo tax sûrement terme yooyu ma di ko utiliser en français en anglais tey si wolof pour wax na ne nit dafa war a góorgóorlu et ma koy waxee si français que seul le travail jariñu kooku dañ koy wax mais kooku c'est la réalité. d'accord ah. Uh-huh. mais euh, président tamit euh, bëri na tey ay étudiants. ñoo xamante ne dañ lay seetaan. Euh, sa comportement sa habillement. nga nekk nit bu correct aussi. di si inspiré jeunes yu bëree bëree bari ak ay personnes yu bare bari loolu tamit ban mbégte lay def si yow bu ñuy ñëw di la ko nettaleeg yooyu. waaw dama si kontaan dafa mel ni forum du premier emploi rek. xam nga bu la yàlla jàppale ba ay junni junni nit nga mun leen xëy. da nga sant yàlla. nekk ci avion des fois kenn jóg muy góor muy jigéen fekk ma fu ma toog nuyu ma remercier ma ne ma xam naa ne xamuloo ma mais man yaa ma utaloon xëy en 2001 keneen ki ne ma yaa ma utaloon xëy en 2003 des fois ma dem banque benn cadre wàcc ne ma ma président fii yaa ma fi dugaloon en 2003 fekk xaw ma leen parce que dama doon dimbale rek ngir yàlla continuer di ko def depuis ñaar fukki at euh, nit ki tamit da ngay bëgg sa bopp parce que bëgg sa bopp si jaamu yàlla la bokk. ba nga xam ne ñi gënoon féete ma ndaw. li si ëpp danaan ma président yaa ñuy inspiré yaa ñuy doon inspiré dana wax ne bu ñu màggee comme yow la ñu bëgg a mel. comme yàlla dafa dogal ma teel a génn. même avant may génn sa dama mos a bëgg suma bopp. donc bi ma génnee ba dellu si waat aussi étudiants yi les jeunes cadres. ñu ne ma suñu lay gis si télévision bi toujours. da ngay toilette toujours costume yu rafet ngay sol boo solee yëre olof grand yu rafet ngay sol boo solee xaftaan xaftaan yu rafet ngay sol ñu dañuy toog di rêver di gént ne bu nu màggee daal comme président la ñu bëgg a mel kooku nag da nga ci sant yàlla parce que Sénégal y a 16 millions de de de personnes c'est man du ma je suis pas un homme politique donc du daw di uti nit ñi mais yàlla moo moom may nit ñi ba pare xam naa ne li may def di ko def ngir yàlla moo tax yàlla dama wërsëla ngay yenn yi d'accord waaw yenn xewal yi moom ne ma ko jox mm-hmm. parce que wax naa la ko léegi booy utal nit xëy ay junni junni ñoo xam ne ne seen waajur yi seen euh, moyen amuñu moyen sonn nga utal kenn rek xëy si benn kër rek xamoon ne fukki nit wékku na si kaw imagine nag nga du ko def ñaar fukki at muy junni junni nit nga may leen teraanga may leen sutura kooku yàlla mënu ko nuleel d'accord euh, président euh, Mbadjik euh, dama bëggoon ñu dem directement ci MEDES ak corridor bi mais il faut ñu yem ci il faut ñu wax ci forum du premier emploi egg comme li nga ko junjee sànq ni bëri na ñoo xamante ni tey yaa leen wutal liggéey mais ba ngay teg taxawal forum du premier emploi déglu naa benn interview boo mos dañu jàpp ne ab rêveur nga maanaam koo xam ne day xalaat boobu noonu ay gént foo ko tegoon eh, nga ne forum du premier emploi te ak léegi vingt ans la vingtième édition bi mu tombante sax ak conseil présidentiel boo xam ne dañ ko doon def ci emploi des jeunes bi nga koy taxawal euh, fan nga sukkandiku woon ba ne forum du premier emploi ak ak ak surtout nag tour bi waaw tur bi booy xool dañ may invité si àddina bi yëpp nag tour bi mooy premier emploi parce que foo dem si àddina bi muy France muy Belgique muy Dubaï muy Amérique am na forum de l'emploi am na semaine de l'emploi am na le mois de l' emploi mais premier emploi yàlla dafa dogal ak sëñ Touba ma génne ko sama sama bopp mooy premier emploi moom la américain yi di ma wax su ma demee la first one dañ may laaj naka nga dem ba xalaatee premier emploi waaw loolu bi ma koy def en 2000 ñu bari dañ ne woon dama bëgg a politique boobu maa ngi doog a ñibbisi si Sénégal ubbi ay société ñu ne kii dafa bëgg am xale yi ndaw yi fekk yàlla du loolu bi mu ubbee société yi dama doon jot CV yu bari xale yi di ut ay xëy may gis ay maîtrisard en sciences ñuy licence trois ay juriste ma ne mais di tax ñi jàng am si yëpp sa mënuñu am xëy waxtaan ak sama benn xarit à l'époque mënoon sama secrétaire général mën na ko kii woon la am solution mais état bi en général politique bi moo leen gën a itteel que leneen ñu xalaat ma tëdd xalaat si xalaat si ne naa créé forum de l' emploi ba si yàgg ma ne naa créé forum du premier emploi mooy xëy bi ngay jëkk am si àddina doo ko fàtte mukk moo tax junni junni xale yooyu wala ma ne million xale yooyu duñ ma mën a fàtte parce que maa leen jëkk jox xëy te loolu dafa am solo bi ma ko defee nag xam nga Sénégal rek comme ni ma ko waxee en france si tu raison très tôt tu as boobu dama teel am dëgg si ñeneen ñëpp boobu ñu naan ay eh, mais fii affaire emploi chômage amu fi bon y a quelques uns loolu daal lañ doon wax critiques yi fi jar def forum de premier emploi ñaar fukki at après yàlla àtte mat ak ñëpp kon amoon naa vision xam ne lii mooy problématique gu suba te tey mooy problématique bi. mais mais est-ce que euh, forum du premier emploi bi nga ko taxawalee ak idée boobu. même temps wu régime Abdoulaye Wade est-ce que ministère yi ñu denkoon loolu. doon nañ si waxtaan ak yow ak doon la laaj sa xalaat ak di. ak di jëfandikoo say proposition pour ndaw ñam liggéey. no mieux. première euh, forum bi Abdoulaye Wade si boppam moo ñëw présider ko. Ah moo ñëw présider ko. deuxième bi Diagne Fada moo doon ministre de la jeunesse. Yoro Dee nekk ministre du travail 2001. ñoom ñu ñëw présider ko donc ñoom xamoon nañu li may def mais état am na doole mais état dafa diis booy xool tey fu ñu toog nii di wax état bu mu gëjee def forum de l'emploi xam na deux la 2003 def na fukki at ak juróom ñett la état gëj a def forum de l'emploi c'était même une semaine de l'emploi pourtant am na moyen am na yëpp mais peut-être volonté bi ak le savoir-faire parce que yëpp du xaalis rek àddina xam-xam dafa am solo xalaat dafa am solo méthodologie dafa am solo donc booy xool 18 ans état amul benn semaine de l'emploi def na fi nag un forum mondial de l'emploi mais kooku amul woon benn njëriñ parce que ay discours la woon ay kii mu jeex quoi donc damay am si loolu fierté président Macky Sall bu nekkee premier ministre ñeenti édition ñoo na présider ko ñeenti coalition forum donc forum dafay traverser régime yi bu subaa tamit bu fekkoon Ousmane Sonko moo ñëw su forum amee dina ñëw wala premier ministre ñëw Macky bu demee ba tànk bi diis Mouhamed na juróom benn yoon forum bi xam na ñu dañuy ñëw en appui rek de l' peut être mën nañu wax ne ne organisation patronale loolu du suñu vocation dem di utile ay xale xëy même sama xaritu patron yi dañ ma si doon politique yow da nga am jot xale yi bàyyi leen ñu rayante dem ñafe comme ñun ut seen liggéey kii ak yooyu mais nit ki tamit ni nga juddoo ak lu la yaree. ndax boo jàppee benn affaire tamit doo bàyyi. ndax boobu noonu ñu jàppoon nañ ne da ngay politique. Euh, te teewul euh, continuer nga lu waral loon euh, résistance boobu. loolu mooy constance. dans la vie il yaa ngi wax ne si kori bi dañ si ñëw. da nga wax si Africa Leadership Award dañ si ñëw. mun na la wax mercredi du MEDES peut-être ñu bari xamuñu ko mais ñaar fukki at ak benn ngeen ni. àllar bu nekk ñu def mercredi du MEDES. ñaar fukki at ak benn loolu mooy constance avant loolu. mais loolu jafe na nag constance. dafa jafe loolu mooy suñu problème ñun africain dañuy def benn affaire ñaari at ñetti at mu dox ñu bàyyi dem defaat leneen laal leneen laal leneen mais man damay considérer toujours que man je suis un horloger suisse xam nga suisse yi montre ñoo ko dàq si àddina seen montre day am toujours heure chaque fois dama naa ne man damay considérer sama bopp comme horloger suisse c'est-à-dire lu ma war a def mois de janvier danaa ko de mars danaa ko wax par exemple conférence islamique des chefs d'entreprise yu jigéen koy def Sénégal ci patronat bi boobu tamit fukki at ñett maa ngi koy def lu mat 500 personnes mag ay jigéen 500 juróomi téeméer bi mujj bi maa ngi ko def yaa ñaari weer hôtel Radisson boobu tamit c'est pareil c'est la constance bi ma koy taxawal 2003 dana mais organisation patronale lan lay ut ci affaire conférence bu jigéen mais boobu jigéen ñi nekk sama biir organisation dañu bari ñi bari bëgg nañ dem mag peut-être amuñu woon moyen ma organiser première édition bi samay xarit yeeg ministre yeeg yooyu may ma ak man sama alalu bopp ma am fukki billet ak juróom-ñaar première édition jox ñooñu ñu dem. ziare ci. Euh, président Mbagnick Diop euh, forum du premier emploi ndaw ñuy ñëw lan la ñuy indaale dafay baax pour nit ñi xam ko seen CV rek la ñuy indi wala nan la demee. c'est bien que nga posé ma question boobu parce que toujours dama koy wax ci nasaraan chaque forum su ma defee ay interview wala ñu invité ma télévision ma expliquer loolu forum bi c'est gratuit depuis première édition bi laa ne lii dama ko taxawal pour dimbali jàppale ndaw yi bugguma benn ndaw génn ci dërëmam boobu première bi budget fukki millions la ak juróom problème juróomi million ma am ay partenaires yu ma jàppale lu mat ñeenti millions juróom benn millions yi ma jël sama alal def ko si muy première édition ñuy dem di dem ba tey forum bi deux cent et quelques millions la budget bi parce que xale yi fu nekk la ñuy jógee dëkk yëpp maa ngi di yónnee paas maa ngi di héberger Dakar maa ngi di jox ñu lekk maa ngi di jox ay bus ñu yóbbu leen hôtel ba gën a mag Sénégal muy King Fahd Palace bi may def loolu tamit dinañ yóbbu hôtel boobu dafa amoon ñu doon wax ne li mu leen di yóbbu fu luxe foofu mais léegi wax nga ko rêve bi nit ki il faut que muy rêve nga koy géntaloo tuuti xale yooyu jógee si ville village yi ñëw Dakar nga yóbbu leen hôtel dugg leen ci bus ñu yóbbu leen King Fahd ñun def fa ñaari fan dañuy da nga leen gis ñuy photo wu ci yi di photo fu président Macky Sall di toog bu amee conférence ak chef d'État yi ñoom ñu taxaw fa ñu photo leen nga leen di gis ci jardin yi ñuy photo wu man damay nekk ci kaw di leen seen di am mbëgte parce que xam naa ne ñii fu mu nekk nii. génn naa leen si seen seen roq bu ñu nekkoon. Mm. bu ñu ñibbee guddi si di xool seen photo di gis lambre yi lu ñuy wax lambre yi mooy lampe yu or yeeg saal yu or yeeg salon yeeg fu président Macky di toog ak fii yu ñoom ñëpp ñu dugg foofu ba pare bu ni yàlla jàppale bu amee ñetti junni yi participer yàlla leen jàppale toujours ba genn wàll gi am xëy donc loolu jàmmu yàlla pour man sa fa la yem parce que nit ñoo xam ne xamul la ne xaw ma seen pap xaw ma seen yaay xaw ma seen nijaay xaw ma seen mag xaw ma seen ñaar fukki at ma leen di jël en charge moo tax coobi bi coow bi du sori dara parce que kenn fayu dara sa budget ëpp na 200 millions ren chaque fois dama doon wax dafa kenn ku ma jege na ma yow li ngay def man daal dama comprendre benn immeuble R plus 8 wala plus 10 si xaalis bi ngay dugal si forum bi man ko xaalis bi ngay dugal si forum bi si ay nit laa koy dugal ay xale ay naw suba ñooy nekk ay responsable c'est li ma siy def gis naa ne yàlla mu ma koy fayee neneen parce que un bienfait n'est jamais perdu doo def lu baax nga am lu bon mais mais est président Mbagnick euh, reconnaissance am na si ndax bëri na ay kilifa si réew mi bëgguñu wax kenn mais ñoo xamante ni tey ci forum bi la journalistes yoo xam ne ne si forum bi lañu jëkkee am xëy kenn ki ma jàppale ko après mu dem France jàngi ñibbi si waat chaque fois damay ne wax ne yéen boo leen bëggee encouragé xale yi da ngeen war a toog ne si forum bi laa jógee di ko nettali di ko nettali mais xam nga nit ku ñuul ak yenn kilifa yi dañu am complexe seen démb dañ koy bëgg a fàtte rapidement jaar si forum mu ubbi la bunt ba nga dem mais loolu jàmbaar la bokk kooku boo koy def da ngay tàngat yeneen xale yi ñu xam ne ne kii c'est possible fii kii kat jaar na fii tey ministre la kii jaar na fii tey directeur banque la kii jaar na fii kii lii la mais parce que loolu moo am solo bi may mujj def forum bi dama daña teg benn directeur général dama seeti ko société bu gën mag si société Sénégal yi la bokk ancien ministre la ñu wàcce ko si après élection 2009 def ko directeur société ko ah Mhm. mu a ma je ne sais pas ma ne ko mais loolu da nga ko war a wax ba pare ñëw sa di témoigner di motiver xale yi. mu ne ma ah xalaat naa ko daal après j'ai laissé passer quoi pour te dire fu mu nekk nii directeur général la. il fut ministre si gouvernement yi passé yëpp ba 2019 bu remaniement américain mais keroog la doog na boobu mu ngi woon université di préparer et puis il fallait que mu génn am stage forum bi am mu ñëw am fa stage mën a mën a dem passer après diplôme am continuer ba génn nekk ingénieur ba mujj a nekk. dugg ci politique bi ba nekk ministre ba tey mu nekk DG loolu yëpp pour wax la rek àddina yàlla ma lay xiir si dara sa bu fekkee ne dëgëruloo dëkk mel ni Sénégal boo dëgërul doo dem parce que dañ lay galgal dañ lay sànni xeer dañ lay kii ba yow sa doo comprendre nga dem man li baax li may def ba pare obligé bu ma jë mel ni que tribunal laa nekk que da war a justifier c'est yow lu baax ngay def kenn génnewul dërëm kenn fekku la ci def ngir yàlla il faut nga am un mental fort mooy moo yi ngay wax may wax ngay dégg ma di wax dama koy wax xale yi il faut nga am mental bu fort fii pour nga réussir fi nga tekk fii il faut que sa bopp dëgër c'est-à-dire bul faale waaw d'accord euh, président Mbagnick Diop euh, ñu daal di ñëw wax nag ci li nga xamante ni tey moom mooy corridor bi 16 ans euh, d'action 16 ans d'innovation 16 ans de succès 16 ans de sacre de l'excellence 16 ans de sacre des valeurs du succès 16 ans de référence 16 ans d'originalité corridor bi bi ren moo nekk nekk seizième édition bi mu war a am euh, fukki fan ci weeru juillet maanaam 10 juillet mais le pari de l'action tamit da koy wax ci corridor bi terme boobu lan nga ñu si euh, expliquer kooku mooy suñu slogan ba may créer MEDES MEDES ba ma koy créer dama ñibbi si Sénégal ak sama yenn xarit ñoo xam ne ay chef d'entreprise la ñu bëggoon dugg si patronat bi mais boobu patronat bi ñi am alal rek ñoo ko ŋàkkoon donc ñun pour ñun ay xale lañu woon ñoo xam ne ne suñu bëggee dugg patron nañ dem si syndicat yu ndaw yi dem adhéré foofu syndicat yi ñoo ñuy représenté comme bañkat laa naturellement bu ma juddoo dama juddu rek nekk bañkat ma ne nañu créé kon ñun suñu patronat sama gars yi di yox yokki ma nañ ko créé ñu créé ko ñu tuddee ko CNJ cercle des jeunes chefs d'entreprise at la ñu def ñu am plus de mille adhérents ma changé ko tuddee ko mouvement des entreprises du Sénégal ma xool nag ñi fi fekkoon borom doole yi leen doon def comme li ma la wax ci ci ñëlbeenu émission bi ma ne du def comme ñoom xool leneen damay def leneen. loolu mooy sama positionnement stratégique bu ñuy booy koy bu ñu koy wax ci français. ci laa créé un volet social volet social bi mooy loolu mooy forum de l'emploi mutuel di jàppale. Euh, jigéen ñi ak ndaw yi di leen financer mooy conférence femme yi may def di di leen jox billet ñuy dem di ziare yonent bi salaatu wasalaam ne naa defaat beneen volet mooy international 2000 ma ubbi bureau Paris Pierre Goudiaby Atepa moo ma joxoon galérien bu nekkoon Champs-Élysées jox ma ko moom fa laa jëkk def bureau Paris ubbi bureau Bruxelles mooy Belgique ci at boobu ubbi bureau Genève di continuer yàlla jàppale ma ubbi bureau Milan ubbi bureau Bonn en dem États-Unis ubbi bureau New jàppale wu ma. fii danaa danaa parce que Ablaye Wade dañ waxtaan lu yàgg si loolu. parce que dañ doon ànd après du tukki fu ñu dem mu gis ñëpp xam ma fu ñu dem ma ne ko kii c'est le représentant du MEDES bu demee New York bu demee Washington bu demee Paris bu demee fu ñu dem si àddina benn jour mu recevoir ma ñuy waxtaan mun na may xam la nga bëri xaalis ma ne ko wallaay bëri wu ma xaalis mun ma comment tu as fait pour ouvrir tous ces bureaux man lorsque j'étais dans l'opposition dama bëggoon di am ay permanence si capitale yi mais aw moon xaalis moon doole pour def ko ma ne ko nag yëpp du xaalis dafa xam-xam bi si la bokk. mu ne ma nag ngay def. tey danaa ko wax sa secret si sa rajo bi. pour la première fois. bureau yi ni mu ko doon ubbee. par exemple bureau Paris bi. Pierre Goudiaby bi moom ma ko joxoon. Atepa boobu dafay fekk alternance am. Ablaye Wade yegg si. ñi ngànkoon bi koom bi. dafa leen mere woon. mu ñëw taf ma si wetam. mais ma am xel bu ne ko. man rek mënu ma représenter patronat bi. il faut que ñeneen yi nga ubbi leen même bu fekkee ne bi nga nekkee si opposition daal woon jàppale. mais nga ubbi leen. Pierre Goudiaby bi jox ma bureau. ñëw tafuma saa yoo ma président ma ànd mu mujje mooy mujj nekk ministre conseiller président Wade chantier yu mag yëpp mu jox ko ko. mais su ma demee si capital fekk fa Abdou Khadre Jili Bagdad mu am société Bruxelles société bu mag di doxal bu ma ñëwee waxtaan ak moom mu ne ma ma ne dama bëgg a dugg MEDES ma ne ko amul benn problème dañ lay copte yónneel sa photo Dakar ak sa copie société yëpp léegi dama lay copte nga nekk membre du MEDES mais comme yow yàlla dogal na am nga société bu mag am ngay bureau yu mag léegi yow lay nommé représentant MEDES yow nga héberger MEDES plaque gu MEDES nekk sa plaque bu nekkee ni Jili Bagdad communication si suuf mouvement des entreprises nekk fa ma ne la yow Jili yow bi ma nommé léegi sama représentant bépp sénégalais africain boo xam ne ne am na entreprise dañuy ñëw adhéré MEDES mais si yow la ñuy adhéré seen cotisation boobu moom la ñuy réunion su ma ñëwee Bruxelles moom lay demee moom mission bu amee benn conférence à Paris mu jóge Bruxelles dem fa wala mu jógee Bruxelles dem New York noonu laa def di ko def di ko def capital yi ba dajale fukki bureau fu ma dem rek am fa bureau boo demee gis plagu Meles taxaw donc su ma waxul loolu nit mënu xam naka laa doon def ba tey bureau yëpp a ngi existé ba pare tamit ay Sénégal yi bëri jaar fa ma incité leen ñu ñibbisi ñenn ñibbisi nañu nekk si léegi si gouvernement bi ñii ñu ngi nekk si ay affaires yu euh, taxawal MEDES xalaat bi jóge si yow ndax nekkoon na lu yomb non yombul dañ ma xeex dañ ma xeex moo tax ma ne la si àddina yi faut nga am un mental fort il faut bi dëgër faut nga nekk bul faale il faut nga gëm li ngay def man bi may bi may taxawal MEDES ay punkal laa song fekkoon fii ñaari organisation yu mag a fi nekkoon ci ay milliardaires rek ñoo ko yore woon donc dañ ko tëjoon matuñu woon ñaar fukki nit tëj ko kenn du dugg man ma ñëw créer MEDES ubbi ko lu tax duggoo woon si ñoom. moom laa la wax sànq bi ngay bëgg dugg du ñu bëgg nga dugg dana la demal si syndicat ci ci si secteur bi nga nekk. demal syndicat de base bi nga adhéré foofu. patron syndicat boobu moo lay représenter donc yow sa kàddu du dem man ma ñëw comme li ma lay wax rek révolutionner patronat bi mooy dama ñëw ubbi ko. créer ko jeunes yi amoon entreprise yëpp. daw ñëw daw ñëw ba pare ma kase prix ñoom boobu moment boobu un million la woon ma doon cotisation man ma ñëw def ko ñaata ñaata nga xalaat laa def cotisation bu may créer Mélès cinq mille francs junni. 5000. 5000. sa boo ñëwee dugg yore sa carte bu subaa bu amee réunion présidence ñu invité ñu dama naa ne yow demal nga représenté boo demee fekk fa ponkali milliardaires yooyu xam dañu tëjoon bunt yi loolu nag kenn baalu ma ko woon xam nga parce que dama ko démocratie dama ko ubbi ba léegi fu ñu nekk nii sa noonu laa def fu mu nekk nii ñu ngi ñu ngi nekk cotisation cent mille francs ñeneen organisation yi un million cinq cent moo tax xale bu ubbi entreprise am jeune ubbi rek day ñëw adhéré yu MEDES parce que da nga am possibilité bi gis ma réunion yi ma lay wax ñuy def ñaar fukki at ak benn càngo mooy ñëw si di lire ordre du jour yi donc ñiy bokk MEDES yëpp am jot danañ ñëw mékkali si boo ñëwee da gis président bi dinañ gis yenn kilifa yi yoo xam ne télé rek nga leen doon gis donc loolu mooy ouverture permettre jeunes yooyu ñu am fit xam ne ne mën nañu réussir. mais slogan bi le pari de l'action. kooku bu ma taxawlee MEDES laa xalaat comme man je suis toujours en action perpétuelle toujours maa ngi bouger gis nga li may fonctionner ma ne man sama sama slogan il faut que nuru ma mooy le pari de xoolal ñaar fukki at ak benn ba léegi boo nee la paille de l'action fu ñu dem ak suñu logo nga gis la paille de l'action day nekk loo xam ne dafa bees dafa bees parce que c'est la paille de l'action il faut faire la paille de l'action être en action permanente tout le temps yaa ngi gëstu yaa ngi réaliser yaa ngi organiser yaa ngi inspirer yaa ngi manager loolu mooy la paille de l'action donc forum du premier emploi comme bi ma koy def avant forum bi MEDES laa jëkk taxawal MEDES ma def la paille de l'action ñaar fukki benn ba léegi foo gis la paille de l'action daf lay inspirer pari de sa ku nekk nag da nga si war a gis sa bopp mooy nekk en mouvement tout le temps d'accord euh, jërëjëf euh, président Mbagnick Diop mbokk yi moom la ñu invité euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu daal di wax ci corridor bi fan la xalaat bi aussi jógee ndax ren la 16e édition bi daaw amul xalaat bi baatu corridor fan la jógee ndax ñu bari dañ lay laaj loolu comme li ma la ko laajee sànq forum du premier emploi fan nga créé tur bi yu baree baree bari yu mel noonu euh, le pari de l'action fan nga jëlee slogan boobu mais baatu corridor fan la ko MEDES jëlee corridor 2003 2004 dama xooloon ci environnement des affaires amul woon benn événement buy sargal ñi créer richesse xam nga àddina yépp muy fii mi feneen chef d'entreprise yow muy créer richesse du état bi chef d'entreprise yow tey Bagdad amoon de la richesse ma gis ne ñëw kenn du leen sargal kenn a am ay parce que bi ma gënee nekk jeune nekk étudiant dama xooloon Houphouët ak Léopold Sédar Senghor Senghor il avait fait l'option de l'intelligentsia mooy intellectuels yi littéraires yi Houphouët def option économique créer ay capitaine d'industrie ivoirien gis nga Côte d'Ivoire ñaar fukki at yi pass yëpp ay crise la mais ba léegi seen économie musul daanu xam ni tax musul daanu ay ivoirien ñoo ko ŋànk bu bal di tàkk bu dëkk bi di tàkk duñ dem fenn foofu lañ xam. foofu lañ dëkk Sénégal genn wàllu romb na industrie bi yëpp. ay étranger ñoo ko yore bu dul tubaab yi di naari naar li ñuy produire yëpp Liban la jëm wala Syrie mais ñoo ëpp intellectuel fii li tax parce que Senghor moo defoon option boobu houphouët ñu def option économique créer ay capitaine d'industrie c'est hyper important ba nga xam ne ne ma ne naa def benn cérémonie boo xam ne at bu jot ñi gën a xarañ ci li ñuy def ñu gën a réaliser ñu def dëkk bi bouger Afrique bouger ñu sargal leen jox leen ay raaya ma xalaat nag symbole bi lan moo ko war a symboliser parce que àddina xalaat rek la ma jël kori xam nga kori si wolof càq càq <laughs> non càq collier la kori mooy euh, lu ñu koy waxee ci olof. waaw genre boobu la. mais booy xool. xoor la mooy booy xool moyen âge. yàgg na moom lañ doon utiliser. pour def business boobu xaalis amul. moom nga doon booy jënd dara joxe cinq kori joxe six kori sept kori mu représenté mille francs wala deux mille francs ak boobu xaalis amul. moom mooy évoluer évoluer ba xaalis am. donc mu nekk benn symbole bu fort. ba nga xam ne parce que foofu la xaalis business économie. si loolu la déparé. moo tax ma jël ko bi ma jëlee symbole boobu comme lu koy Pape Diouf di woyee wala Youssou Ndour yow yaa jël kori def ko urus ma sànge ko ak or bi donc mu nekk kori d'or moo tax des fois bu may gisee ñi may toppandoo yëpp des fois du def dara defa mu xaw la métti parce que da ngay xawul xalaat bi nga xalaat ba créé ko. xam nga léegi lépp coono boobu defuñ ko si ñoom. ko dañuy gis dara rek or parce que man ne mu ngeen créé leneen lu dul or. beneen tur man mii sama wàllu bopp bi kuréel yi demee ba am treize éditions dama xalaat parce que àddina booy def dara muy dox rek nga wengu si rek muy dem dana dem benn moment dafay saturé mooy le pari de l' action il faut toujours ngay xalaat xool ngay anticiper si laa ne ah kuréel yi mu ngi dox àddina yëpp xam nañu kuréel bu ndaw bu doog a juddu sa boo ko yeewee xam na ko ñii imité yëpp boo leen xoolee samedi dimanche boo yeewoo fàtte lan nga xooloon samedi bi noonu la yàlla moo ko dogal kenn mënu si dara ñii jéem a def kori yëpp boo ko xoolee ajuma bu samedi nga fàtte ajuma loo xool mais yow bi nga taxawal euh, corridor di samal cérémonie di euh, delloo njukkal ñi nga xamante ni tey ñooy chef d'entreprise yi ak ñi nga xamante ni tey ay doomu réew mi lañ lan nga si jublu woon pour yëkkati leen pour wane leen lan nga si jublu woon lan moo nekkoon bii bi mooy référence continent dafay am ay symbole xale bu ndaw jeune bu nekk bëgg nga di gis nit wax nga ma ko sànq ne naan la am na ay étudiants ay cadre léegi bu ñu gënee nekk jeune dañ ma doon xool dina ah man du màggee ko moom la ñu bëgg a mel wala su màggee ko moom la ñu bëgg di solo parce que àddina bu nekkee xale dangay am ay référence ay symbole ñii ñuy jox raaya boobu kër yi ñëpp booy xool ay kilifa lañu wala ñu nekk ay xale nekk seen rox mais xam nga am na ñu potentiel kii boo leen joxee raaya di leen génn àll ni yëpp xam leen seen affaire gën a donc ñu kori fabriqué laa bëgg a wax dafa bari bëgguma lim tur parce que bëgguma tooñ wala bëgguma kii mais ñu bari doon mbëkkante aussi pour ñëw pour ñu wane mais ba léegi kori c'est la seule soirée en Afrique boo xam ne bu desee fukki fan ak juróom amatul benn place bu disponible ñëpp ay ñëw fi bi nekk ni édition bi fukki fan ak ñaar moo si amatuñu benn place nit ñaa ngi commencé ñëw jóge Amérique ñëppay ñëw fi mu nekk nii américain yu ngi ñëw kenn ki sax dina am dinañ ko def ambassadeur Thomas Rome mooy avocat bu gën a mag si avocat yi gën a mag Amérique la bokk la première productrice de cinéma Tera René dina fi nekk président patronat ku ngànk koom-koomu France Europe francophonie 88 pays mooy seen président dina fi nekk Afrique ñëppay ñëw donc kooku fierte la pour ñu sénégalais ñu dem ba créer benn événement boo xam ne àdduna bi yëpp dañ si ko bàyyi xel di ko suivre ñun tey signé nañu ak fanweeri benn télévision pour ñu def ko direct fanweer ak benn loo xam ne du du euro du coupe du monde du jeu olympique c'est un label qu'on a réussi à imposer au monde entier parce que on renvoie le beau dañuy delloowaat ku toog di ko seetaan nekk Chine nekk Japon nekk Dubaï nekk Makk nekk foo nekk da nga gis ne Afrique Sénégal c'est le beau salle bi rafet nit ñi sañse organisation bi impeccable ñi ni jox raaya ñëpp ku nekk ñu wax sa jaar-jaar da ngay am fierté ne man su ma sañoon chaque jour lii laay gis ci sama dëkk mooy renvoyer le beau dëkk mënu nekk toujours ci ay ngaayoo ci ay politique ci ay xëccoo boo gisee doo ma dégg may wax ci politique parce que pour man ku nekk fi nga nekk rek mën nga servir sa pays parce que loolu dafa am solo. 10 euh, juillet la 16e euh, édition bi fan ngeen toll yéen a ngi ci dernier réglage yi walla. parce que bii dafa nekk édition bu spéciale xam nga moo tax. amul. ren altine yëpp di ko xaar Sénégal yëpp di ko xaar. ñu def benn plateau bu relevé peut que munuma la wax tey nii artistes yi si war a joué yëpp mënu ma la wax. kilifa yoo xam ne dañu war a am raaya mais ku le 10 da ngay am li ñuy wax satisfaction da ngay kontaan yow sa bopp rek fi nga toog ak sa waa kër da ngay kontaan parce que da ngay xam ne kat nii dañuy liggéey mu nekk comme li nga ko waxee sànq toujours dañuy innover ren scène bi may def scène bi 100 pour cent numérique lay doon mu ngi doog am Afrique scène bi yëpp numérique lay doon seen bu ñuy joxee raay mm. bokkul ak scène musicale bi seen muy joxe raay yi yëpp dafay nekk 100 pour cent numérique moo xam ne ne nit ki fu mu nekk si àddina daf siy gis boppam waaw mais mais président euh, affaire corridor bi tamit euh, gis nañ ne am na ñoo xam ne dañuy commencé benn affaire benn ñaari at danañ gis ne benn engouement bi mais 16e bi ak covid bi préparation yi ni ñu ko gisee communication bi ngeen fi def euh, Dakar boo xoolee yaa gis écran yi lan mooy sa secret ci loolu waaw xam nga nag man communication laa jàng moom laa xam ba nga xam ne ne kilifa yu bari danaan jo bu buy am événement moom bu jéem jéem def événement un mois avant bu jéem a def événement mm, un mois après parce que même président samay tooñ ne ma rouleau compresseur nga rouleau compresseur mooy lépp ngay dégager sa wet bon xam communication du bombarde rek communication il nga xalaat ko comme ni nga ko waxee tey foo dem si Sénégal ak ci Afrique yaa ngi gis kori ñu ngi si écran géant yi ñu ngi ci écran numérique yi spot yaa ngi daw mais d'une façon très subtil ma xam ne ne mënoo réer daa di xam ne ne kër yi am na Sénégal ñu ngi génn ci télévision yi gën a mag si àddina bi donc réflexion la ak relation ak ay réseau ba nga xam ne ne booy def dara àddina bi yëpp dana ko yëg parce que man construire tuma bopp sénégalais la mais nekkatuma position sénégale sénégalais c'est-à-dire moi je suis panafricain man su may xool du ma xoolee pour Sénégal damay xool pour le continent loolu nag mooy refléter si yi may def ba nga xam ne ne muy am ay trente mujj def Paris on avait plus de 36 nationalités Afrique 54 pays la nga fexe ba indi 36 nationalités yu bokkul anglo-saxon yi ma ñuy làkk anglais ñoo ëppoon francophone yi gisoo premier prix bi ki ñu ko jox sud africaine la d'origine indienne moom lañ njëkk jox prix scientifique bi parce que kooku moom mooy liggéey tey pour trouver vaccin wu sida ñëpp lañ ne kii fu mu dem ba loqate ji femme bi indi ko Paris jox ko parce que dañuy gëstu di xool ñiy liggéey. mais euh, président euh, bëgg nañoo xam tamit. corridor ñi ñi ñi ñi ngay faral di jox ay raaya. Euh, yàgg sa équipe yéen toog ngeen xalaat ko wala da ngeen xool Sénégal gi yépp ministres yi xool directeur général yi xool sénégalais yi xool ñan ñoo xamante ni daal mérito nañ ko nan ngeen di euh, tànnee noonu. loolu la ñuy wax dafa am jury. par ren moom mën naa la ko wax. Euh, président euh, euh, directeur général BNDE banque nationale pour le développement Thierno Seydou si mooy président bi jury bi président patronat français bu ma la wax si la bokk MSN président R si la bokk ay patron ay chef d'entreprise ay champion ñoom ñooy yore jury bi léegi ñun suma équipe lu ñuy def mooy catégorie bu nekk parce que dafay am catégorie l'entreprise la plus performante l'entreprise la plus compétitive le meilleur manager homme le meilleur manager femme l'entreprise émergente mooy entreprise bi xam ne mu ngi doog a jóg euh, courrier de l'excellence et cetera donc catégorie bu nekk dañ ciy liggéey jël si bu nekk cinquante institutions cinquante entreprises wala cinquante personnalités ci cinquante yi ñu liggéey ko ñu liggéey ba garder fukk ci catégorie bu nekk ñu garder dix dix yooyu la ñuy bind nominé après jury bi nag ñuy liggéey ci catégorie yooyu catégorie bu am dix balaa kuréel yi ñoom ñuy éliminer ba mu des trois trois yooyu ngay gis ñoom ñooy nekk finaliste yi jouru kuréel bi si ñett yooyu nag la ñuy génnee ku am ko xam ne moom la ñuy jox raaje noonu lay demee c'est un travail de fond parce que c'est sur des critères objectifs mën a tëb rek bon au départ bu gars yi doon jéem a xajamal ak yooyu dana mais kuréel yi ñu am xaalis dañ koy jox wala lii wala laa koy mais gis nañu daaw jox nañu bay taxi kii def euh, car rapide car rapide amul dara dañ ko jox kuréel xam ni tax hmm. dañuy gis gos bi moo jëkk def cak-cak yi ngay gis car car rapide. léegi euh, président euh, gis naa tamit ne. fi ne nii yaa ngi def ay euh, audience tout la journée. yaa ngi ci activités yi. yow ak sa équipe. fi mu ne nii daal wàññeeku na wala jàpp nga ne. dafa tar. <laughs> fi nekk nii. Uh-huh. moment bi mooy moment ba gën a metti si kuréel yi mooy bu desee fukki fan ak juróom. ba jour kër yi du ñu am guddi du ñu am bëccëg. mais lan ban côté gën a métti. pression bi xam nga foo xam ne kilifa yëpp fay daje sa kilifa bu nekk danga nga foog ne yor yaay kilifa kilifa nekk il faut nga gérer ko ko ñëpp dañ lay teg ba xool aussi. da koy teg wàcc da nga koy jox wàcc yi aussi dafa bari ay guerre si artistes yi faut nga gérer artistes yëpp parce que ku si nekk kii mooy bëgg a ki kii mooy bëgg a mujjee jouer kii ne kii du ma jiitu nga nga gérer côté technique bi ñëw léegi wax naa la seen numérique la ñuy def kooku sa demande énormément de moyens et de logistique. àdduna bi ñoo koy seetaan aussi. àdduna bi yëpp di ko seetaan. Mm. ñu signé ak télévision yu bari. fii Sénégal TFM moo koy génne. Mm-hmm. dëkk bu nekk sa télévision nationale yi télévision privée moo koy génne. ci Canal Plus Label TV moo koy génne donc dafa nekk loo xam ne ne dafa diis. salle bi ñu koy defee rek. depuis le premier ñu ngi commencé aménager salle bi. matériel bu si wala dugg yëpp. rien que la décoration booy xool fu ne ñu di toog ak table yi rek ay millions millions yu dul jeex la parce que moom laa la wax. ça renvoie le beau lu rafet lay wane donc loolu yëpp mu nekk liggéey yow nga centraliser ko nag nekk si digg bi di gis kilifa yi di gis ñëpp sa man booy xool kori gouvernement baa nga fa mais opposition baa nga fa parce que opposition moom la nekkoon pouvoir avant sa kori booy ko doon xool bu njëkk ba maanaam Wade dafa bëggoon kori yi moo doon toog toujours sama wet soxna Ablaye Wade fu nekk ànd naa fa ak moom parce que j'ai fait beaucoup d'événements peut-être kori yi moom moo gën a ràññ mais am na concept bu tudd diaspora des affaires dama ko doon def si capital yu mag yëpp si capital àddina yëpp def naa ko dama dem wër àddina ba mu ba mu mat moo bàyyi concept boobu nit ñi comme ni ñuy toppanoo forum wala ñuy toppanoo kori léegi foo gis ñu naan diaspora lii diaspora laa diaspora laa bi ñuy def diaspora kenn xalaatul def diaspora sa diaspora la ma doon concept bi mooy fekk fu Sénégal yi nekk ak africains yi nga leen kat Sénégal fi mu nekk nii am na liggéey seen expérience seen compétence indi leen ko Sénégal ngeen fexe ba dëkk bi évoluer donc su ma doon dem dama doon yóbbu lu mat juróom benn ak première dame yóbbu lu mat téeméeri chef d' entreprise foofu may dem aussi autorités yi nekk foofu ma invité leen sénégalais ak africains yi nag mu nekk invité leen ñu toog waxtaan ñoom ñu xam ñu won leen Sénégal carrément l'environnement des affaires yan secteur nga mën a investir loolu dañu doon inciter Sénégalais ñu ñibbi si ñëw investir seen dëkk comprendre loolu moom la diaspora des affaires kooku def naa ko si àddina bi yëpp dañ ko def 2003 ba 2013 mais mais mais président da nga si war a mbégte aussi même bu dee nit ñi ñoo ngi copier li ngay def bien vrai que da nga si xalaat ba sonn pour taxawal ko mais euh, ñi koy jël tamit di ko def euh, moo xam or nangam ak yooyu yow loolu euh, danga nga si war a da si war a kontaan mais euh, corridor bi 16e édition bi tamit euh, da ngeen si defaale vingt ans MEDES loolu tamit lan nga ci wax. waaw dina am benn film buy daw tey si guddi tey samedi le 3 bu marche bi jeexee si TFM film boobu dafay retracer ñaar fukki atu MEDES peut-être ñi ñuy déglu tey da di invité ñu dégg ñu xool film boobu dañ comprendre fan lañ jógee ak fu ñu yegg si. man dama fekk lu amul dara. terrain bu bu bu bu vide. ma terrassé ko def fondement bi teg ko ba mu yegg nekk gratte-ciel. parce que tey MEDES institution la institution international mais bokk loo xam ñu dañu ñëw ñu ñu donn ko. non dama gis lu dara amul ñu créé ko suñu bopp. muy yéeg di yéeg di yéeg ñu ñuy xeex duñu ñu dóor di ñu galgal ñuy des fois ñu xaw a titubé mais taxawaat bañ a daanu xam nga. di dem di dem di dem di créer di innover comme li ma la wax sànq maa la koy wax peut-être dama ko yeglu woon nee naa la ñetti vole laa créer di taxoon MEDES mu uteeg ñeneen yi mooy volet sociale bi wax naa la ko mooy forum de l'emploi mooy mutuelle bi mooy conférence femmes yi yooyu yëpp vole sociale la mooy don yi may def hôpitaux yi ay hôpital Tivaouane hôpital Pikine hôpital Dantec euh, service cancérologie euh, pouponnière yi loolu yëpp ñu koy def si du ñu def bruit mu nekk ay téeméeri millions ñu ko def pour jàppale. beneen bi wax naa la ko mooy vole international bi ubbi bureau kenn xalaatul woon ba léegi sax même modestie à part amul benn sénégalais bu am fukki bureau à l'international amul. ma la effectivement. non amul. Euh, président da ngay faral dégg ñu ne diw euh, diw ko créer yow yaa créé sa bopp. ma daa xam lu ma gëm. mooy liggéey man. dama am chance juddu ci famille boo xam ne comme ni ñu koy waxee léegi bu nekk à l'aise sam moo doon directeur Shell Sénégal mu nekkoon compagnie bu gën a mag ci compagnie fii Sénégal mm-hmm. bu ñu nekkee xale juróom-ñaari oto moo nekkoon suñu kër ak juróom-ñaari chauffeur mm-hmm. su noonu dem fii ba boutique naa ba sax oto bi yóbbuñu su ma doon jàngi suñu kër ak suñu école deful cinq minutes oto bi may yóbbu xaar ma ba à l'époque da ngay wàcc dem añi ñëwaat jàng si après midi wàcc cinq heures sam papa du yóbbu ñu dem cinéma du yóbbu ñu dem théâtre dafa bëggoon suñu xel ubbi ubbi ubbeeku yàlla dogal yàlla bu dara tëwul mu dem retraite anticipée te boo fekk daf ñu du ma waxoon ñu yàq ma lu ñu bëggoon ñu ngi koy doon am bu mu demee retraite affaire yi commencé dëgër. lu ñu doon am amatuñ ko woon ma di ko xool nekk xale am fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom ñaar ma ne man may góor samay taaw bu góor may jàng suma wàccee dem liggéey ne ko lii man maa koy def di def noonu di def noonu ba yàlla dimbali ma ma France continuer yàlla ubbil ma wërsëg ma ñëw continuer mu amee donc fukki at ak juróom benn ba tey maam at yi ma am maa yore suñu kër sama yaay di ma ñaanal sama pap di ma ñaanal parce que nit ñi duñu xam kii di tax yàlla du ko sutural di ko may lépp c'est parce que dama ko liggéey mais mm-hmm. mais mais président ni nga imposé woo ni au niveau national international euh, say pexe bopp la wala say ambition bopp la. waaw moom laa doon wax ni comme li ma la ko waxee xam nga boo nekkee jeune nekk lycéen am fukki at ak juróom-benn doo xalaat ne boo wàccee da nga dem fubal yi dama doon fubal la mu doon fubal mais benn moment nga ne ah il faut que ma góorgóorlu am si lu ma jàpp di jàppalewaat kër gi pour standing bu ñu am mëntuñ ko am mais au moins duñu wàcc ba si suuf loolu daf lay jox jom ak ambition loolu moo tax ma continue woon ba pare nekk bañkat ba pare lu ma amee woon su ma amoon téeméer damay ñëw jox sama yaay genn wàll gi jox sama papa genn wàll bu manqué tuuti lu tuuti loolu moom laa doon jële moom la doon attaaya moom la doon defee lii moom la doon defee la ma tàmm partage boobu. suñu kër moom laay waxee toujours dama suñu kër mu njëkk am boolu dof li ñuy wax boolu dof parce que sama yaay dafa généreuse buñ defaree añu pare day jël benn bool tibb ëpp ko sama xarit yeeg sama xaritu mag yeeg ji ku si wàcc kii bu bëgg a lekk fu heure boo ñëwee da ngay lekk loolu moo tax peut ñu am générosité bi ñu am parce que noonu la ñu yaree di def lu baax nag teral sama pap teral suma yaay yóbbu leen ku si nekk ñaata yoon mag ñu may ñaanal di ma ñaanal parce que loolu may dégg wax olof yi doon ko wax comme dama yàgg Europe da am esprit tubaab mais dama xam ne ne dëgg la parce que dama koy dund waaw mooy barke Baye ak liggéeyu ndey. macha allah waaw ñu lay ñaanal suma yaay dafa ma doon ñaanal toujours bay jooy toujours su ma la ko mais tax ngay jooy tamit sama ñaanal sooy jooy daf may gêné munuma maa la jur mais da baax xam nga loolu dafa am solo. génn lañu àddina def na léegi ñoom ñaar juróom benn weer la rawante. yàlla dogal ma fi ma leen jenc mu nekk si tali bi. nekk si kanam ba pare ñoom ñaar ñu nekk képp ku ma xam ak sama emploi lu mu feesee képp xam nañ ne dimanche cinq heures maa ngi armeer ya mosuma rate xanaa may tukki si sumay may tukki damay dem tàggule su ma ñëwee jaaraat fa ne ñëw na ñaanal leen ne leen sàkku maa ngi waat ñaan ci ñoom loolu yëpp nit mënul ko xam dangay gis ngay dem rek ma man dama gëm ñaanu waajur parce que dama tarbiru sama waajur ñu ñaanal ma ba nga xam ne yàlla dafa ma dimbali li nit di wax ne tout ce qui il le transforme en or mooy lépp lu mu laa rek day barkeel xam nga sant si yàlla noonu beneen côté bi ma am aussi ay ay ay ay ay ay ay wàll yu yoo xam ne yàlla dafa ma booleeg ñoom ba ma nekkee xale ñooy Mamran Alaaji Baara ah dem ba nekk xalif général di murit gis nga sama émol bi moom laa ko tuddee rajo bi mu laa ko tuddee parce que daf ma bëggoon demoon nañu bay di fanaan si même lal boobu xale la sa boobu fekk moom nekkagul xalif nekkagul woon dara ah, yàlla booluñu moog man ñuy dem di ànd di ànd di ànd ba mu nekk xalifu sëñ Fallou mhm. dem ba nekk xalif général des Mourides su ma demoon Touba sëriñ ñu mag yëpp dañ doon toog di xaar ñu ne kan moo nekk si biir fekk man maa fa nekk dañuy waxtaan parce que dañuy xamante boobu xale laa sa boobu mhm. moom dara yegg seegul tu vois donc àddina dafay dox lu am solo mooy def lu baax lu am solo mooy yéene nit lu baax man nit même bu ma ko xamul su ma gisee muy def lu baax di réaliser fu ma toog damay kontaan parce que fan loolu mooy nit ku baax du yore kurus bu gudd du yore di dem toujours jumaa ja di woo di kii soxol baaxul gisoo bëggoo gis kenn ku tekki bëggoo gis kenn ku réussir mais dans en pays tout le monde ne peut pas être médiocre ñëpp mënuñu xëcc ñëpp ñu wàcc noonu ñëpp nekk ci suuf. yàlla bi ñu bi ñu bi ñu yàlla bi ñu sàkk. Mm-hmm. baaraam yi matul ku si nekk am na benn baaraam bu ëpp beneen il faut ñu nangu loolu parce que boo ko nanguwul mooy gëmuloo yàlla. Euh, président Mbagnick euh, Diop waxtaan bi dafa neex euh, kon mbokk yi ñoo ngi waajal li nga xamante ni moom mooy corridor bi 10 juillet la mu nekk 16 édition bi léegi suñu laaj bu mujj bi mooy yow patron de presse nga aussi mais ñu bari président Mbagnick Diop corridor MEDES African Leadership Award la ñuy wax lan moo faral doo faral di génn di wax lu bari ci presse te ngay nekk patron de presse. tubaab dafay wax. le meilleur communicant et celui qui sait communiquer au bon moment mooy ki dàq communiquer mooy kuy xaar ba mu war a wax mu wax dama dem temps yee New York ñu invité ma ci benn rajo man leen aw ma jot sama emploi temps mayuma ko ñu jaar fu nekk woo ay kilifa yu bari kilifa yi woo ma ne ma rajo bi ñëpp a koy déglu man leen waaw mais aw ma benn envie def émission. moom benn kilifa bu mag a mag woo ma ma am kersa si moom ma d'accord dem defi émission bi bi ma waa ji laajee li tax nga jafe si émission ñëpp la xam mais kenn du la gis si télévision kenn bu amul sa événement rek kenn la gis ma tooñ ko ma ne ko man birima laa su ma waxee ren balaa may wax déwén technicien bi ay lool mel ni jawo teg birima mm. parce que bu ne lu am nga wax sa wax ku ko rek amatul benn sens loolu moo tax ma nekk patron de presse kenn du ma gis may wax kenn du ma dégg may wax euh, su ma waree wax laay wax su ma amee avènement rek man maa koy porter parce que man la nit ñi xam waaw crédibilité boobu dama si sant yàlla parce que àddina crédibilité la boo amul crédibilité mënuma indi ay chef d'état ay chef de gouvernement des fois président Macky Sall si dafay jaaxle parce que du ko tàggu su may invité ay collègues am dafa leen di gis di gis ay premier ministre di gis ñi ëpp alal ci Afrique ma leen di dajale mais loolu mooy crédibilité mooy nit ñi yaakaar la am confiance yow xam ne li ngay def da ko gëm dafa am crédibilité loolu dafa am solo yéen nag c'est vrai groupe de presse laa yore suñu groupe bi am na plus de cent personnes di si sant yàlla te yàkkamtiwu ma lu ñu war a def yëpp ñu ngi koy def dama lay déglu jili à travers yow damay féliciter équipe yëpp parce que équipe jeune laa am sama def option boobu moo na lam jëli yàlla may na ma moyen yoo xam ne mën naa jël vedette bu ma neex yàlla may na ma ko mais man je préfère fabriquer mes propres stars rajo ba ñu fa nekk gannaaw yëpp ay star la ñëpp leen xam léegi si bu ñu fay dugg ay reporter wala stagiaire wala kenn xamu leen ay anonyme la ñu war mais dama leen di teg si yoon. créer leen créer leen ak sama rigueur. parce que rigueur dafa am solo. fii Afrique wala Sénégal boo amee rigueur danaan kii dafa sévère trop wala dafa soxor wala dafa lii mais rigueur moom la ñuy wax ko au bout de l' effort y a le succès mënoon di ñàkk sa doo jëriñu c' pas possible. dama leen di déglu des ma déglu sa émission kàddu réew mi émission boo xam ne ñëpp a kay déglu des ma gis nit dugg juum attaqué la. te yàlla xam ne ne maa ngi koy wax fii si rajo bi tey mën naa toog at duma la gis. musuma la wax defal nii wala defal nii wala waxal nii muy yow muy sa morom yëpp ak émision politique yi fa am yëpp. musuma si wax kenn ku nekk dama ne na nga demal sa xelu bopp ak sa conscience bopp. Mm-hmm. li ngay def yow yaa ko xam. jox na la responsabilité jox na la benn pouvoir parce que di wax àddina di la déglu pouvoir la donc yow yaay am sa responsabilité ba xam li nga war a wax ak foo war yem mhm. mais man musuma wax nit na ko xoolal fii parce que man bugguma ñu ma naan ma xoolal fii wala nii nga war a waxee wala nii bugguma ko duma ko def nit mhm. mais danaa xam ne ne nit ki war na am responsabilité am mhm. professionnalisme ba nga xam ne ne lu ñu ko dénk dina ko gérer si yow loolu ngay def ma jëla si gërëm de la si féliciter parce que man du ma wax nit lu ma gëmul koo wax président Mbagnick dana la moo fi gën a baax lu mu yore joxe ko mais dafa naqari deret xam nga ma naqari deret bugguma ko ma yeb bugguma teg benn acte wala def dara loo xam ne ne samay soppe dañu am kersa comprendre nga bu baax lu ma wax chaque jour su ma jullee ñaari affaire laay ñaan yàlla toujours à mu sàmm ma mooy yàlla bu ma dajantee ci journée bi koo xam ne dafa négatif ku négatif mooy xam ne lu bon nag lay wax moom lay xalaat moom lay yéene dama naan yàlla bu ma ko dajanteeg moom parce que dafa lay jox ay ondes yu négative loolu dafa am dafa c'est important loolu tu beneen bi aussi mooy nit ki lu ko yàlla may nangu ko tey euh, jili Bagdad yàlla def na maa la koy wax sànq en off man la su may déglu sa revue de presse damay kontaan bi parce que tey bu ñu amoon concours revue de presse ma ne man jili mooy sama candidat wóor na ma yaay yaay fël la boo fëlul tamit yaay deuxième mais parce que da ko liggéey peut-être bi nga ñëw si rajo bi nekk woon niveau boobu mais dangay ñëw di progresser gëm li ngay def. am ful la est que du liberté bi nga may groupe bi la aussi. mais loolu la parce que moi même quotidien bi des fois président Macky Sall daf may mere si quotidien bi. damay xëy gis ñu titre attaqué suma xarit la des fois mu yónni ma whatsapp ma ne ko mais président mais moi je ne contrôle la rédaction ñoom loolu neex la ñuy bind xam nga loolu li ma ko may mooy sama indépendance sama autonomie mun ma téye woon fenn du ma am indépendance boobu man je suis un homme libre je suis un esprit libre loolu laa mos bi ma juddoo ba bu ma toll fii dama am autonomie dama am indépendance dama am liberté ba ñi may liggéeyal dafay feeñ si ñoom. macha allah waaw loolu dafa am c'est important liberté boobu. Ablaye Wade pareil bu mu fi nekkee des fois daf ma doon mere. am na benn moment daf daf ma def lu ñuy wax blacklist mooy sama gouvernement bu leen demati ci événement ma bu leen joxati publicité bu leen def lii def laa kii ak yooyu. ñu dem affaire bi albatu ñu ne non PDS la parce que PDS ñooy gën a woote PDS ñooy gën a kii journal bi lii après ñu ne non xaytu Macky la kon lii ak lii ak lii nga xam ne kon loolu mooy suñu slogan yaa ngi doon wax le pari de l'action mais suñu slogan slogan groupe euh, euh, l'équilibre est notre credo ñu dañuy équilibré tey mun nañu dóor comme li ngeen di wax ci pouvoir bi suba ñu dóor ci opposition bi ku def lu baax ñu def nga lu baax ku def erreur def lu bon ñu wax na ko mais loolu mooy àddina. d'accord ah merci euh, président waxtu wi euh, jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. ah émission bi neexoon na xam nga nag il faut que sa auditeurs yi xam ne man je suis un passionné. Mm. bariwuma wax gaawuma wax mais lu may wax xol lay waxee parce que dama gëm may wax. macha allah waaw moo tax peut-être des fois passion bi ëpp. tu vois bu nu amoon trois heures émission aussi mën naa ko def sa kenn du ennuyé wu parce que li may wax boo amee dégg-dégg di nga ko dégg. macha allah waaw ah, yow nag nga nga mérité ko. parce que fi mu nekk nii ak euh, Corée bi journaux yëpp télévision yeeg rajo yeeg côté ñëpp may laaj interview mais volontairement man maa ne du joxe interview presse internationale bi dañ may bind sama cabinet pour ñëw couvrir ko ma leen baax na parce que je maîtrise ma communication tey su guddi sànq wax naa ko nee naa ñu ñuy déglu tey mën nañ ma xool ngoon li tax ñu may xool film Médès la ñuy teg sa man maa introduire bu jeexee aussi ñu laaj ma sama impression parce que damay xoolaat film bi di gis ay ay kanam yoo xam ne nekkatuñ fi lu ëpp ñaar fukki nit yoo xam ne dañu àndoon ak moom yàlla jëlee leen fi ma xam ne ne àddina du dara lu am solo mooy def lu baax donc ñu si sant yàlla bu baax di leen gërëm di félicité waat waa rajo bi yëpp waa rédaction bi ak sa auditeurs yi Euh, sa auditeurs yi surtout kaddu réew mi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ah. di leen sant di leen gërëm si jàppale aussi bi ñuy jàppale rajo bi même des fois ma dégg seen wax yi xaw a dëgër mais loolu mooy àddina ñëpp ñu bokk gis-gis mais day nangul nit tamit gis-gisam waaw xalaatam loolu c'est important jërëjëf euh, Bagdad jërëjëf euh, président Mbagnick Diop mbokk yi moom la ñu invité woon euh, ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15 heures jot a jàpp 16 heures Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi ngeen jëf jàmm ak jàmm